bu ñu waxee université te da mel ni nga wax richesse richesse dëkk bi wax avenir dëkk bi kon ñun ñun ñooy avenir dëkk bi boo gisee ñun luñ def nu nii la mën a réagir quoi dinañ tiit dinañ mer waa et tout mais duñ def lu dul gëm yàlla concentré wu tamit parce que bu dee bu dee liggéey rek. war nañ mën a liggéey ba nga xamante ne ni dindi loolu suñu bopp bi quoi parce que. bañ a tiit waaw parce que tamit li li yàlla dogal la mais demay ñaan rek état bi gouvernement bi si seen jëm bopp ñu jël seen i matuwaay ko parce que lii waroon nañ ko préparer avant. jàpp naa ne yàlla moo ñu ëpp yërmande si si si ñun comme lu mu def rek mm, dañ ko ciy sant xanaa te tamit di ko ñaan ndax moom moo ne. Euh, heure boo leen xëyee dee leen ma ñaan dañ koy ñaan mu musal ñu si bi ñu ko déggee nag tiin nañ waaye tamit sant nañ ci yàlla waaw ndax moom daal moo ñu ëpp yërmande jàpp naa ne euh, moom mi ko def dinañ dina dina ko euh, dinañu sàmm daal waaw ñu ngi koy ñaan daal mu musal ñu si waaw suñ borom ci boppam bala nga koy ñaan dara dangay ngay sabablu ca loolu ba pare nga koy ñaan comme que feebar buy wàlle la ñu jël si matuwaay matuwaay mooy ku ne leen wax ne Eh, man nako joxe ngay ak lolu ba bañ koy def dal lolu dal japp na né kuko def tay ñaan yalla musal la ci di ci muccu il faut chercher ñi nga xamante ne bon ñom la amal contact pour ñu jëm len sensibiliser tester len ba xam da ñom tam ñu lu corona c'est ça quoi bala virus bi moy law. c'est ça le danger surtout. na ci si inquiétude kay parce que première personne bi ko am mi ngi fan te fan euh, soriwul fii nii. te bu ñëwee université moom mën nañoo jàpp ne université mooy Sénégal. war nañ jël ay matuwaay surtout université Anta Diop surtout parce que fii mun nañ ne c'est Sénégal en miniature te nombre bi fi nekk dafa pléthorique waaw mu fi nekk dañoo bari trop état daal moom ñu ngi koy ñaax mu gën ñoo jàppale surtout université Anta Diop surtout ñun surtout waaw te boo seetloo ci restaurant yi. dañ fay fees Samburi tamit dañ fay fees fu nekk université place boo xamante ne ni étudiants yi dañ fay dajaloo day fees waaw war nañoo matuwaay yi daal war nañ ko fee gën a mën a jël ci le plus rapidement possible. jël matuwaay yi nga xam ne ni war nañ nga xam ne ni joomu dàngoro yi duñ ko mën a dugal ci biir réew mi fexe tamit ba sensibiliser population bi xam ne ku ci am yenn symptômes mi nga bañ a nga bañ a déplacé dem ci structure sanitaire yi mais nga woo structure sanitaire yi ñu ñëw ci boppam xool ba xam am ba xam jàngoro ji ñuy ñuy laam-laame ne yor nga ko

kenn kenn kenn kenn xamul sa morom daal mën naa ne milieu dox daje la euh, réseau yi kon gis na ni mu demee euh, santé bi des na bari na daal mbooloo mi te mbooloo fu ñuy dajale dafa yomb daal feebar yu mel noonu am fi waaw te autorité yi tamit ñu surtout frontières yi ñu jël ci ay matuwaay ñu kuy dugg ñu xool la kuy génn ñu xool la. na ñu toog ci suñ chambre bu ñu demee jàngi ba ñëw. ñu wàññi dox bi bu génn pour génn biir Dakar di dem di dem ko ñëw ñu wàññi dox bi bu baax a baax parce que tamit dox bu bari bi sama classe gi dañoo mën a dox macha allah dox bu bari bi xam xamu fay dugg fay teg sa tànk mais bu dee ci biir campus bi fii la garaawul. ñu jël suñu matuwaay rek di si di préserver wu di laaw loxo raxas suñuy loxo di protéger wu à chaque fois c'est tout ah loolu kese la di moytu lu bëri quoi parce que tamit liy ñëw la rek day dem bu jàllee on passe à autre chose. Thank you.